aousbillah bisimilah inna wa niya laawo jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zaahirana baatinan kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nee naa la kookoy borom alxadimiya te alxadimiya euh, day defar réew tey nag ñu ngi fi nga xamante ne mooy arène national ñu ànd ak prise production grand combat bi war a dox ci diggante bi Bébé Diouldé ak ki nga xamante ne mooy Armé Ngéwél waaye prise production da ci sargal ki nga xamante ne mooy Amadou Ba moom la ci sargal officiel bi nekk ci diggante boîte vocale ak ki nga xamante ne mooy caatu limousine waaye nag Pape Socé war na cee bëree ki nga xamante mooy carrière 2 caatu bambara war na cee bëree ki nga xamante ne mooy Quench 2 waaye bébé Ouz na ci dajeeg pakala mbuur nongo daara na ci bëree ki nga xamante ne mooy selembele général tam war cee bëree ki nga xamante ne mooy radiateur li tigre Jal Diop 2 war cee bëree ki nga xamante ne mooy mbarka Forman war a daje ki nga xamante ne mooy maam ngañ Sabawal war daje ki nga xamante ne mooy boy cak-cak tay nak samedi 24 27 janvier 2024 fi ci arena nationale way à chaque fois damay gërëm ki nga xamantene moy sama sponsor leader ki nga xamantene moy ndoy Lumière borom lumière yu baxé mu ngi fële nga xamantene moy Grand yof bo demee ba rond point monument rek fo la ci kër Cheikh Xarala ñu won la ko ñu ngi fi arena nationale ni la leen koy topalé sa suné suba dinañ fi ñëwaat. di leen wax jërëjëf ba ci kanam ci combat ay ci jërëjëf di gërëm bu baax a baax a baax Baye Mass le jeune caméraman du peuple kenn du moom ci mim ay ca jërëjëf c'est bon. deuxième combat de la soirée bi démarré na ay ca cokkaas na Forman Forman 2 ak Mame Ngagne jàpp na tànk bi lan mooy xew bàyyiwaat na ko Forman 2 ak Mame Ngagne maam ngañ nga jàkkaar lool maam ngañ nga jàkkaar lool maam ak Forman maam ngañ ak Forman ci biir géew gi deuxième combat bi premier combat bi problème licence la ayca jàpp na ko lan mooy xew Forman ak maam ngañ Forman ak maam ngañ aca protestant ba wadd protestant ba wadd na protestant ba wadd na arbitre bi woowaat leen ci digg géew gi eh ajaw ma leen mooy na leen Mame Ngagne ak Formane Mame Ngagne ak Formane de jàpp na tànk ba toog na ko laa ilaaha illallah jëli ba rey na laa ilaaha illallah

ma arbitre xoolal ma temps mu dóor ma kàddu gi daj ko. lépp yaa def mën a bëri man. mais gis nga jàpp tànk bi rek jàpp na dëgg bu ak BMW ak Kiwel ak Sandrep foofu laa yaroo. Ah. su soo mën a bëri man loolu wax man. Ah. maa ngi seet sama papa Baye Modou. barke Serigne Touba ko ëmb si fayam Baye Modou Baye waa ma waa ma sant nga képp ku yokkal ma jaare maa lay sant ñoom Manga ñoom Ramdan Junior waa Sandaga yëpp dinaa sama maam bi lépp yàlla yërëm doxale ko àjjana kii dafa sonn si man. ndeysaan naa di sonn sama booy nag booy doon sonn si man wóor ma yàlla ay Diop do ay top 5 sama booy yëpp Baba Jaxal ñoom des. mais fan man fan la ne nii. dama jëm pap kii. Eh? Pathé Baldé. Eh, eh, ah. Pathé mel. waaw ah? ñu jox ko ah? moo nga bëgg ko ba ma xam doole. nga ne kaa di bëree. Ah? waaw. billaahi walaahi maa ko mën billaahi. aywa jaajëfal nañu. aywa waaw.